man maa ngi ko taxaw nag. parce que boo boo dëggalee parce que boo dëggalee candidature ah, mooy Khalifa Sall mm. boo jàppee ne Pastef kese moom mm. moo fii parti boo xamante ne jàpp nga ne ci ñoom ñeent ñooñu Khalifa sama rakk la foo koy teg sama rakk la sama lépp la Khalifa Sall sama rakk sama lépp la mais xalifaa ngi ci gutta buy politique ñeneen lay politigal loolu it dafa metti politique te ñeneen ngay politigal dafa metti xalifaa ngi ci guta karima ngi ci guta ah, am waaw Idi nag mu mu ngi si mburu so ñu yeggale te li ma la bëgg a wax mm-hmm. am na parti yu bari yoo xam ne boo jaaree ci gannaaw jox leen xaalis ñu bàyyi xam nga Sénégal li ma ci gën a naqari mooy dañuy dañ nax dañ ay naxante yoo xam ne yu tond la ku ne xam na ko am na fi ñoo xam ne ku ànd ak ñoom it ëllëg bu ñu leen di jox xaalis ñu dem àndu ñoo yow ngi fi te ku ne xam na leen am na ñu commencé sax di euh, di di commencé mos. Mhm. mburoog soow bu ñu nee sekk Seck dong mooy mburoog soow de mburoog soow yi am na ñuy root guddi de yéen ko xamut yéen ñi xam nañ ko de. waaw xam ngeen ko dama leen di digal leen xare. Ah, mhm. ndax yow xam naa ngëlig nga war a dëkk. waaw waaw. maag yow ñoo dëkk xam nga ne. waaw <laughs> ngëlig a ngumbale benn la benn la soriwul. ay bokk lan depuis Njaajaan Njaay ñëw dëkk. waa dëgg la. dama leen di digal yéen waa réew mi. nga xaw ma waa Pastef. Mhm. faites votre bonhomme de chemin. lu ngeen am ngeen doyloo ko. da ngeen di doog a juddu te bu leen yàkkamti. mais est-ce que loolu dina yomb jamono ji ci Sénégal oh non. mais monsieur Goumbal est-ce que dina yomb ci élection nga bañ a dem ak. coalition sénégalais yi sénégalais yi ñoo yàkkamti. en vérité ñun yàkkamti wuñu yi ñoo sonn fi mu nekk nii ba yàkkamtee changé li fi nekk. loolu mooy problème bi. gis nga coono boobu ngay wax. Mhm. musuma lekk ci benn pouvoir bu ne Sénégal benn. du benn kii maa ko ngénte. Mhm. Mhm. kii ngeen gis nii. baayam Cheikh Diallo laa nekkaloon du politique maa ko ngénte ci ngénte li rek sax laa mën a yem waaye maa ko ngénte <laughs> waaw ba mu nekk nii di politique lépp lu ma wax lu ci lu dëgg moom boo ko dul weddi mais xam na ko xam na ko fii laa newoon li ma leen di bëgg a wax système bi ngeen bëgg a dindi dafa dëgër xam système yi ñu koy composé wax leen composante système bi mm-hmm. la majorité des hommes d'affaires ñi ngi ci absolument les marabouts. la majorité des marabouts ñu ngi ci. Mm-hmm. la majorité des truands au Sénégal ñu ngi ci système bi. majorité sàcc yi ñu ngi ci système bi. Mm-hmm. majorité yi ñuy dox guddi ñu ngi ci système bi. système bi mooy le Sénégal c' est la synthèse du Sénégal. mais est ce que ñoom ni ñu procédé également. c' est la synthèse du Sénégal mooy système bi monsieur Goumbala. gis nga Assane 2 dañu mas a wax ak moom di ko def interview ni ko monsieur Assane 2 comment faire pour changer la Maroc xam nga lu mu wax waa ji bi. xam nga hmm. Assane de ku kii la. mu ne ko pour changer la Maroc il faut amener du nouveau Marocain. <laughs> da ngay ay Marocain système bi mooy Sénégal. mais mais li ma la bëgg laaj mooy coalition bi monsieur Goumbala. waaw li ma la bëgg laaj mooy coalition bi ni ñu doxalee. Euh, ni ñu procédé taxawal ñoom ñeent ba pare. door nag jàppe seen bopp na ñoom ñooy kilifa yi yeneen eh, eh, maanaam ñeenti coalition yi door a jàppee nag ñeneen ñi ci des na ñoom xëy na ku ci nekk da ngay dem ak affinité xëy na bu ñu nee affinité mooy eh, tey PDS am na affinité ak bokk gis-gis ak ay Mamadou de Decroix ñoom xëy na am nañu affinité Pastef waaw c'est-à-dire que noonu ñu ko bëgg a defee dem waxtaan ci ñoom ñeent ba noppi door a ñëw door a waxtaan ak yeneen parti affilié est-ce que noonu la ñu war a procéder parce que gis nañu ay frustration yu tàmbalee jóg ku ci mel ne Thierno Bocoum euh, euh, xëpp na ci suuf eh, ñeneen ñi ñi ngi wax bokk gis-gis ne ñoom d'accord uñu keneen ak xam naa ko bu baax j'ai beaucoup d'estime pour lui am na mouvement yorut parti mouvement la yor man bu ma neexoon bi ma génnee AFP bu ma defoon parti yow xam nga ni ñi ñëpp maa leen di ëpp ëppale Hmm. lu tax defuma parti parti dafa am ay contraintes il faut nga am ay moyens mën a am ay nit mën a am logistique ñii ñëpp di wax fii mu ne koo ci ne dajaleel sa mbooloo mais Bougane am na ay moyen mais deful parti mouvement la def non attends la def moo gën a yomb mais mën na ko def parti sax mais dama lay bëgg wax ñii ñëpp koo ci ne woon dajaleel say nit lu dajale fukki nit c'est des partis récépissés et des partis cabine téléphonique. mais mais mais quand même Thierno Bocoum mouvement Thierno Bocoum ku ne xam ne dayoom ci politique ci Sénégal. non dayoom Thierno Bocoum ci politique. mooy la Idriss Seck en avait fait un député. Mhm. il était à l'Assemblée nationale. il est tout le temps présent ci li nga xam ne mooy jafe-jafe askan wi aussi. Eh, eh, man bu ma neexoon mel ne moom. ma neexoon mel ne moom dem ci plateau yi askan wi nangam nangam coow c'est tout Thierno <laughs> na xam ne. yaa ngi dem ci plateau yi nag Thierno Bocoum dafa taxaw ci wetu askan wi ak seen ay jàmbat ak seen i jafe-jafe man taxaw ma ci wetu askan wi. waaw mais da nga askan wi laa taxaw. ay yéen yéen daal ku ànd ak Macky Sall du dara. mais barki démb fii ku ngeen bëggoon ngeen ma lool yëkkati ma. <laughs> da leen gën a bëgg rek grand. déedéet <laughs> ku ànd ak Macky Sall daal daal du dara pourtant nag grand yow tu es constant de. ah tu es toujours constant malgré que yaa ngi ci pouvoir bi mais tu es constant de. yow li ah. ngay bu fekk am na ñoo xamante ne amuñu le courage de résister pour dire que Macky lay àndal mais ànduma ak Antoine Diome. loolu leer na dañu dem dañu dem. attends attends alors j'ai pas ah, dangaa bëgg a tas opposition bi rek. daa bëgg tas opposition bi. dañoo gis ne yow ak samay maam ñoo bokki tool. Mhm. depuis Njaajaan Njaay ci ku xam Kajoor. Mhm. li ma la bëgg a wax. da ngeen di tey te bu leen yàkkamti. Wade a vingt six ans de opposition. te Wade opposition ba mu Diouf bi koy Wade daataal daane. il a fallu le départ de Moustapha Niass et de Djiboka qui pesait vingt cinq pour cent. mais Djiboka ak Moustapha Niass bu ñu demutoon mais Diouf du daal mais comme Diouf tuune la. au lieu kon mi ngi jëm élection il demande un mandat de sept ans encore am dix-neuf ans di demande sept ans xam nga ni ñii d'accorduñ ci mais il fallait les amadouer ndax leen nàpp nàppal ba am si sept ans dàq leen loolu la waroon a def mais mu ne gars yi ne comme ñii duñu dara duñu dara ba jiba ba ñu demee jibo am sept Moustapha am dix-sept demi muy vingt-cinq Wade am trente quelque nekk deuxième tour gars yi sànni sànni koloma système bi dafa jafe daane gis nga gars yi danañ leen xànc xam nga xànc. ñuy def guy. xànc déedéet gigis. nga daanelee foofu gigis am bala waa mm-hmm. mm-hmm. yéen guy ngeen am amu leen ñun Saalum gigis lañu. Mm-hmm. danañ leen xànc danañ leen poqe. yàlla bu ma bokk ak yéen parti. alors loolu leer na yàlla dimbali alors loolu leer na Cissé. amiin loolu daal euh, peut-être que ñi nga xamante ne ñoo fare ci nguur gi <laughs> taxawalaguñu seen coalition ndax yéen moom euh, dafa mel ne amu leen fitu. samp seen dënd il faut bi kàddu gi jóge ci ki nga xamante ne mooy jiite parti bi di le président Macky Sall pour kenn ku ci nekk mu mën la boole ci liste yi mais bu ngeen gisee loolu nga xamante ne amul leen peut-être une coalition bi ngeen taxalagum te ñenn ñi fare ci ku jëkk politique ñoom ñu ngi togg ba bëgg a yàq li nga xam ne mooy seen coalition est-ce que amul leen ci tiitaange bu ñu jàppee ne euh, PUR euh, PASTEF PDS ak Manko taxawu fas yéene daje mouvement yi ci mel ne gëm sa bopp jox na bokkum ak ñeneen fas yéene également ay coalition saw euh, du tiital peut-être le pouvoir ci élection locale yi balaa maa wuyu damay njëkk parce que sëñ Saliou daf ma interpellé sànq. ci mhm. affaire u yi. ma bëgg ko wax ni gis nga li muy wax noonu article cinquante et bi ngeen jàll fii. soixante cinquante et mhm. dañ ko modifié depuis moom lañuy wax la loi